الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد عباد الله mbokk yi suñu xutba tey ñu ngi koy jëmale ci fàttali la nga xam ni suñu borom yàlla dig nañu ko nee na waskuru llaha kasiran laallakum tuflixuun dee leen tudd yàlla lu bari ngir ngeen doon aji texe ab jullit day xam ne suñu borom yàlla kat fu mu mën a nekk ci guddi ak bëccëg boole na koog ñaari malaaka kenn kànka féete ndeyjoor lan moo ko itteel mooy ana lu baax looy wax ana lu baax looy jëf mu bindal la ko ci sab téere keneen kàng la féete càmmoon lenn dong moo ko yitteel di la déglu di la xool ana lu bon looy wax ak ana lu bon looy jëf mu bindal la ko ci sa téere téere boobe amul lenn loo xam ne dana ko bàyyi te la ngay def fu kenn nekkul wala di ko wax fu kenn newul wala di ko jëf fu kenn newul amul lenn loo xam ne dañ ko ca bàyyi lu dul ña la ko bindal bu yowmal qiyaami su ñëwee ñu jox la ko yaa koy xoolal sa bopp yaay regleel sa bopp yow yaay yëgal sa bopp ne aji texe ngay doon wala nga yëgal sa bopp ne aji texe di ngay doon ki nga xam ne yàlla dafa ubbi xolam ubbi xelam mooy ki nga xam ne téeréem boobi dana ko fexee taaral dana ko fexee leeral ci feesal ko dell ci wax juy boroomam gërëm ak jëf yu boromam gërëm waaye moytu di ka tilimal di ka taasal ki yépp wax wala bépp jëf boo xam ni suñu borom yàlla gërëmut loolu mbokk julit na ngeen ragal seen borom dara ump ko ci li nga xam ne yéen a ngi koy jëf suñu borom yàlla boobee gis nañu ni bokk na ci lu ñu ëbbil ci bunt jëf boo xam ne nii dafa gërëm lool ca yombal ko ci ñun lool loolu mooy lan moom mooy bari di ko fàttaliku jalla wa ala naam bari di ko fàttaliku jalla wa ala looloo tax ñi warit di baril xutba yu jëm ci fàttaliku yàlla jalla wa ala ci jamono ju mën a nekk rawatina jamono ji ñuy dund di jamono yi càggante ay yéen mbokku julit suñu borom ñi mu jàpp ni wala boog ñi mu féetale ni ñoom ñooy ber borom xel yi ci ñun du architecte yi du médecin yi du scientifique yi waaye ñam jàpp ne ñooy borom xel yi ci ñun mooy ñi nga xam ne fu ñu toll ñu ngi fàttaliku seen borom. na doon dañoo tëdd dañoo toog wala dañoo taxaw mbokk fàttali ko yàlla ca la xol gi dale adduna kërug nattu la kërug dund ay jafe-jafe la ak loo fi mën a am waaye bokk na luy dalal xolub julit lépp loo xam ne jaaxal na ko ci adduna mu delluwaat tudd tudd boroomam su ko defee loolu day doon luy dalal xolam moo tax suñu borom ni ndax du ci fàttaliku yàlla dong la ab xol mën a daje akakay ci fàttaliku yàlla la tiis yi di mën a teggi ko ca la yàlla di dëgëral doomu aadama bi ba fitna bu mu mën a jànkonteel lu jëm ci wàllu njaboot ga wàllu sëy ba wàllu liggéey ba xataa ca wàllu guerre ba jàkkaarloog noonu lislaam yàllaa koy dëgëral xolam dëgëral jëmmam moo tax suñu borom ni su ngeen dajeeg yéeféer yi ci toolu jihaad na ngeen sax waaye baril di fàttaliku yàlla lu bëree bëri mbokk suñu borom yàlla subhanahu wa taala amul kenn kuy sax di nga fàttaliku lu dul dina taaral sab xol dugal ci ndégte suñu borom heure boo ko tuddee mu tudd la wax naa ak yonent bi salallahu alayhi wa sallam ci li ñuy tuddee xadisul qudsi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne seen borom yàlla day nee na maa ngi nekk ci sama jaam li mu jortu ci man ay jaam bi boo jortee ci sa borom ni moom kat ku la jege la ku tiliwul dara la te borom yërmande la loolu fokk da nga ko fekk ci sa borom borom bi it ne fu mu ma tudde maa ngi ànd ak moom su dee daf maa toog di ma tudd ci boppam kese danaa ko tudd ci sama bopp su toogee mbooloo di ma tudd danaa ko tudd ci mbooloo bu gën a kawe mbooloo ba mu toogal di ma tudd yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne raw na ña nga xam ne ñu néew lañu raw na ña nga xam ne ñu néew lañu saxaaba yi na ko ayum yàlla yónni ñu néew ñooñu mooy ñan mu ne mooy ñi nga xam ne dañuy tudd yàlla lu bari na doon ca góor ñi la wala ci jigéen ñi la daana waxit ne julit bi nga xam ne mi nga toog di tudd yàlla ak waaja toog tuddul yàlla day mi ngi mel ni nit kuy dund ak néew boo xam ne daa tëdd lii tamit taxoon na ba ñu wax ko ne ko ay yum yàlla yónni yowmal qiyaama ana kan mooy gën a yey ci nga ramm ko mu tabbi aljanna mu ne mooy ki nga xam ne danay wax laa ilaha illa allah boo xam ne ca xolam la jógee te loolu mooy jubluwaayu zikrullah mooy loo xam ne nii ba nga koy wax xam nga li ngay wax lu mu doon ca it gëm nga ko ca it gëstii na caa taxaw moo tax mu ne képp koo xam ne bi ngay faatu yaa ngi mujj wax laa ilaha illa allah nee na yow àddina nga jëm mbokk loolu lan moo la koy may mooy bari lool di wax kaddu gu màgg googu la ilaha illa allah mi ngi noonu la ilaha illa allah te ñu moytu seytaane ba ñoo yàqal aka bari ci ay nit heure bu ñu yéemu lu ñu wax la ilaha mbokk loolu mooy kaddu gi gën a bon gu doomu aadama wax ci kaw suuf la ilaha mooy kenn yeyoowul ñu koy jaam loolu la communiste yi ak athéisme yi di wax julit del wax la ilaha illa allah kenn yooyoowul ñu koy jaamu ko dul yàlla di ko baril di wax doomu aadama loo miin da ngay gis ne mën nga ko wax sax te doo ko tey su ko defee loolu heure bu mujjee sa lammiñ bégal àddina nga jam yeneen ci bi alei salatu wasalaam nee na ku fekk sa mbokk di sukkural sax nan ko wax mu wax laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah boobu yeneen bi salallahu alei wa sallam nee na ku wax laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamd wa huwa ala kulli chein qadir nga wax ko fukki yoon rek mi ngi noonu nga xam ne à peine deux minutes la lay jëlal maximum yaa ngi mel ne ko goreeloon ñeenti jaam ca doomi ismaila ya nga xam ne ñooy maamu yonente bi salallahu alayhi wa sallam mu ne nag soo ko waxoon téeméeri yoon لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نينا داي لا تجيل تيميري بكار بندل لا تيميري يو يكتي لا تيميري درجة te bisu keroog boobee day amul kenn ko mën a defal yàlla lu yàlla gën a gërëm jëf jën ka defal xanaa lu dul ko def lu ëpp li nga def te loolu mbokk julit essayé leen ko lu sa lammiñ yéex yéex yéex doo ci def quinze minutes mi ngi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne it ñaari kàddoo ngi nii lool yàlla woyefal ko ci lammiñ yi waaye bu nekk poids yu dis gann ci balance bi si penc te mooy subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim subhanallah bihamdihi maa ngi tudd sellug yàlla ànd ak di ko sant subhanallahi alazim maa ngi tudd sellug yàlla mu màgg mi mbokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana ñuy bégal ne koo xam ne ni day xëy nga wax téeméeri yoon subhanallah wa bihamdihi say bakkaar bu ñu bari woon ba mel ne lii di puurit ba nekk géej suñu borom yàlla dana la ko baal boo demee essayé ko ñetti minute la lay jëlal subhanallah bihamdihi nga am ci téeméer yeneen ci boobu sallallahu alayhi wa sallam daan wax ni ma xëy suba yàlla may ma ma wax laa ilaha illa ma wax laa ilaha illa allah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar nee na moo ma gënal lépp loo xam ne jant bi da koy leeral te loolu mbokk suuf te la bokk ak yeneen planète yi wër jant ba yépp mbokk julit góor góorlu leen di bari tudd yàlla jalla wa ala di fàttaliku melokaanam yu kawe ya ak xéewalam yu bari ya ci yéen di tudd yàlla seen boroom te xam ne day la nga xamee ne nii moom mooy subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah mbokk yi day ay kàddu la yoo xam ne heure bu ngeen jógee di ko wax loolee ci zikru laa la bokk waaye xam leen ne bépp jëf bi ngeen di jëf jëf boobee ngeen jublu ca la nga xam ne mooy ngërëmal yàlla loolu day bokk ci zikrullah jullit du jublu ci benn jëf julli laam sarax laam lu mu mën a doon ca yàllaa tax lu dul zikrullah la amul lenn looy bàyyi ci bàkkaar ca yàllaa tax lu dul loolu zikrullah la mi ngi noonu benn waay ñëw na ci yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam ay yëmu yàlla yónni yàlla li muy digle ci sharia day bari na dama bëggoon na nga wax ma ca lu yomb loo xam ne danaa ko mën a jàpp moon man maa texeel yonent bi na ko fexeel ba sa làmmi ñuy footal nay ànd ak zikrullah loolu moo tax ba mbokk julit xam leen ni zikrullah boobee suñu borom yàlla yombal na ko ci yu bare bare bari moytu leen di bokk ca ña yàlla subhanahu wa taala di ŋàññi ci téeréem mooy ña nga xam ne seeni xol dañoo sàggal ci tudd yàlla bal suñu borom waxul ñu mel noonu waaye dene bu leen toog ak ñu mel noonu sax wala tuti man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba hawahu wa kana amruhu furta moytul ma bépp koy toogaaleel koo xam ne bu ngeen defoon deux heures de temps it mbiri àdduna dong dong dong lay wax ak yow kàddu yàlla du génn ci moom mukk mbokk loolee da ngay gis ne bokk na ci ay njuumte suñu yonent bi salallahu alayhi wa sallam gis nañu ne boo delloo ci li nga xam ne nii moom mooy am njàngaleem daana ca wax ne doomu aadama yi day heure bu ñu toogee ci jataay ba jóge fa kenn waxu fa yàlla nee na kenn fàttaliwu fa lu yeneen ci bàyyi salaam wax ban julli ci moom nee na toogaay boobu pertaange la leen di jural su neexee yàlla mën na leen caa mbugal su neexee yàlla sax mën na leen caa jéggal moo taxoon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam jàngaloon ñu ne kenn ci yéen fu mu toog bay jóg ngal la waay na wax subhanaka allahuma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk ku toog ci jataay bay jóg na wax yàlla sell ñeel na la maa ngi lay sant te di seede ne kenn yeyewul ñu ko jaamu ku dul yow maa ngi tuub jëm ci yow te di la jéggalu soo ko mënagul foo toogee di waxtaan bay jóg waxal subhanallah walhamdulillah wal la ilaha illa allah wastaghfirullah ndax zikr boobu loolu lay ëmb ndax dëpp na ci ab julit nga toog ci jataay wax ko lépp loo xam ne nii itteel na la ci mbiru àdduna ba jóge ko tuddoo sa borom tuddoo sa yeneen ci borom loolee mbokk ay njuumte la yoo xam ne nii yu bari la nañ góorgóorlu fu ñu mën a toll di baril di def zikrullah ca ñu jéem koo comprendre amul kenn ci yéen lu dul xam ne ni yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam day daana wax ne ki nga xam ne nii dafay julli ba pare daa di ne subhanallah fanweer yoon ak ñett alhamdulillah fanweer ak ñett allahu akbar fanweer ak ñett la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah lahu lmulk wa lahu lhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir muy benn yoon loolee nee na képp ku koy def képp ku la rawoon ci jaamu yàlla da nga ko dab te kenn du la raw ci kenn du la dab ci jaamu yàlla xanaa lu dul koy def la ngay def waaye mbokk ngëneel boobu kan moo ko am mooy ki comprendre wax yooyee xam ko di ko dund bi ngay wax subhanallah yaa ngi xam ne sell ñeel na yàlla jalla wa ala kon lépp loo xam ne day méngoowul ak yow moom doo ko def doo bokk ci ñi koy wutal moroom di ko wutal doom wala di ko melal melokaan bu mu melul waaye di ngay wax alhamdulillah yaa ngi gëm ne bépp xéewal bu nekk ci yow bépp xéewal bu wàcc ci kaw suuf ak ci kum mën a dem ci kenn dong lu jóge muy suñu borom jalla wa ala bi ngay wax allahu akbar yaa ngi gëm ne amul lu màgg lu dul yàllaa ko gën a màgg sama jëkkër sama kilifa la samay waajur naka noonu directeur de service général d'armée président de la république naam ñoom ñëpp ay kilifa lañu waaye kilifa gi gën a màgg ci kilifa yi mooy borom bi jàll wa ala ay ndigalam dama ko yemee léegi ndigalu kenn ay tereem dama ko yemee tere kenn lii mbokk la allahu akbar di firi la ilaha illa allah wax nañ leen ko sànq te mooy ngeen gëm ni kañ yeewul ñu ko jaamu ku dul yàlla bokk na ci it li ñuy tuddee la hawla wala quwata illa billah kenn amul pexe kattan ku dul yàlla mbokk juróomi mbire googu gàtt lool subhanallah alhamdulillah allahu akbar la ilaha illa allah wallah mi ngi noonu wala hawla wala quwata illa billah mbokk lii la ñuy tuddee albaqiyatu salihat suñu borom yàlla moo bind àdduna mu ne àddunaa ngi noonu de almaalu walbanuun zinatu lxayaati dunia والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا اي ين دوما ادم يني nga jëkkante ci alal yi jëkkante ngir doom yi bari ci réussir waaye xam leen ne la leen di jëriñ dëgg-dëgg mooy la sax te doon lu yiw moo ko baqiyaatu salihaat mooy bépp jëf bu baax booy jëf waaye la nekk ca bopp ba te borom xam-xam yëpp ci lu ko baqiyaatu salihaat mooy zikr yu gàtt yooyu nga xam ne yeyul ci benn julit mu koy bañ a mën a mu koy bañ a man abadan mën ngaa bañ a mokkal sar sangam sar sangam waaye yeyul ci benn julit muy bañ a mokkal subhanallah alhamdulillah la ilaha illa allah allahu akbar la hawla wala quwata illa billah ngan la way mbokk julit góorgóorlu leen ci loolu te xam leen ni la nga xam ne moo matal loolu lépp ca ëmb loolu lépp mooy téereb yàlla bi heure booy jàng téereb yàlla bi yaa ngi wax subhanallah yaa ngi wax alhamdulillah yaa ngi wax la ilaha illa allah yaa ngi wax allahu akbar yaa ngi wax la hawla wala quwata illa billah téereb yàlla boobu nga xam ne tey mbokk julit lu bari ci nit ñi am na luñ ko remplacé ca lañ ko remplacé mbokk moom mooy li ñuy tuddee musiba portable amul kenn ci yéen ku dul heure bu yëkkatee portable am war na ñaan yàlla yàlla nag ma may yiw wu ci nekk ak yiw wiñ ko defere musal ma ci ayam ak ay wiñ ko defere ngeen góor-góor la bàyyi xel internet wallahi lazi la ilaha illa hu la ca nekk ci musiba ëpp na téeméer yoon la ci nekk ci njëriñ bari na lool julit ñoo xam ne bu doon tege ne amoon nañ compteur bu nekk seen portable ñu mën a xool bu ñu xëyee 24 heures yi ñaata lañ koy tiim lañ cay nekk di ca seetaan ci vidéo yañ cay tasaare ci audio yañ cay tasaare yee ay gàgg sente la yu amul bopp amul genn yee ay xabaar la mbir la yoo xam ne nii sa yoon néew ca yoomal xiyaama amul la benn njëriñ loolee ku ci amoon compteur da ngay gis ne nekkate chaque jour yàq nga des heures et des heures yoo xam ne mënal nga caa am ceeru alquran mënal nga ko caa jàng bari na ay nit tey bu ñu calculé woon li ñuy def seen li ñuy këpp seen kanam ci portable wallahi lañ ca mënul jàng ca usine kenn xamul na mu toll mbokk mooy ci leen loolu bokk na luy taaral ah diine doomu aadama lépp lu ko amalul njëriñ mu ba ko te fekk lépp loo xam ne ni da koy jëriñ mu jéem a jël ci loolu seytaane noonu lay naxe nit heure bu la munta yóbbu ca yu xaraam ya day fekk yu dagan ya nga xam ne nag amul bopp amul génn mu saxal la ca ba la la waroon a amal njëriñ àllaaxira moom nga fàtte ko mbokk lii kon mooy zikrullah suñu borom yombal ko lool suñu borom indi ci xéewal lool suñu ay Aïcha radiallahu anha nee na waa àjjana buñ jugee àjjana amul lenn loo xam ne dañ ko toog xalaat ko am ci ak réccu lu dul waxtu yañ sànkoon ca nekk ñuy woon di ca tudd seen borom looloo tax mbokk la ñuy jeexale mooy la yonent bi alayhi salaam dénkoon kenn ca ndaw ña waxuma kenn ca mag ña de Muaz ibnu Jabal dund na lu yàgg gannaaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam te bi muy faatu 33 ans la am yonent bi alayhi salaam ne ko ay Muaz man de dama laa bëgg foo jullee ba pare del wax yàlla yàlla nag ma dimbali te ma lay fàttaliku yàlla nag ma dimbali te ma lay sant yàlla nag ma dimbali ma jaamu la jaamu gu sell jaamu gu sell mooy jaamu gu dëppoog sunna te bi nga koy def yàlla rek a tax yàlla na yàlla dimbali ñu ñu koy fàttali ko fu ñu mën a toll yàlla nañu yàlla dimbali ñu koy sant ci luñ mën a nekkee yàlla na yàlla dimbali ñu jaamu ko jaamu gu sell yàlla na yàlla defal ñu mën ko rafet yàlla na yàlla boole ñu ca jaamam yi mu tànn di leen teral àdduna di leen teral alaxira اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك سبحان ربك رب العزه ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين